ah di wax na nag euh, tey dañoo ñëw ci benn journée spéciale boo xamante ne si dañu am gan gan gi nag ñu bañ mu rëcc ñu gan gi xelam liggéey mi ngi màcc ci jëm ci wa mbirum dàmp tubaab bi ko wax massage ku na xam na ne jigéen ak dàmp ñoo ànd ndax lépp ci mbiri kër gi la te lépp luy defar jigéen la te soxna Fatima Lo di dox ci mbiri jigéen ak lépp lu koy defar ak lépp luy defar kër gi ba tax na tey ma bëggoon a dalal ku ñuy wax soxna Mariam Badji di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaay di wax ne soxna Mariam Badji bu fekkee yaa ngi teew ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la wax ahlan wa sahlan ci bisu tey bi nga xamante ne mooy suñu waxtaan ak yow. alhamdulilahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسقيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين السلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه، واتر جمان لين دنوي صحنا بنتو مان لين نوي دل الزيار دل lay nuyu di la ziar di la ko ñaanal borom bi subhanahu wa defal ko tawfeex fi dunia wal axira lépp loo xam ne mi ngi koy summ rek mu doon ci li nga xam ne jëmale islam kanam yàlla na ko buur bi subhanahu wa taala euh, jàppale di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am kontante di ñëwaat ci biir kër gi tasewaat fekk samay soppe di nuyu Seyda Fatima Lo euh, di nuyu bépp soppe rek boo xam ne yaa ngi ci biir kër gi di wax ni fa jazakunallah xayran بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سوحنا بنتي نيغ لاي فيات نيو واو جوت امول ندخ فمنا ني صاح ووتا نان اني خمنا داماي تنك رك ابري ما نيو ني اغالي ان شاء الله ليغا خمنا موم موي ماساج دا فا دي لو خمنا لو اما ام سولو لا سي ليغا خمنا موم موي يرامو دومو ادم ناخ يالا نيم بيندي دومو ادمه داي سون bu dee jigéen day wasin bu dee góor day liggéey léegi loolu lépp muy def bu demee ba benn moment day soxla yaramam pour mu nekk loo xam ne dañ ko war a maase ndax da xool sax liir bu juddoo dañ koy maase pour muscle yi mën a tendre mën a bàyyeeku kon massage li nga xam ne moom mooy njëriñam mooy dafay tax li nga xam ne moom mooy yaram bi circulation sanguine mi li nga xam ne moom mooy euh, euh, deret bi daw ci doomu aadama day tax mu daw daw bu normal bu fekkee ay neer la yoo xam ne dafa nelawoon ci yaramam tamit massage bu fekkee jaar na yoon neer yooyu mën na ko yee ndax da xool bu fekkee nit ki yenn saa yi dafa am yenn jafe-jafe yi sax euh, am ay AVC wala yeneen feebar yi bu si jógee dafay dem di def lan li nga xam ne moom mooy massage day dem ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc ñu koy defal loo xam ne moom mooy ay wàllu massage kon massage dafa di loo xam ne lu ama am solo la muy ci góor muy ci jigéen muy ci xale euh, day tax circulation mi daw normalement ba pare tamit euh, sentiment de bien-être la ndax nit ki boo maasee woo ba pare dangay gis nit da ngay da ngay féex mi ngi noonu ba pare massage tamit dafay tax nit ki euh, bu fekkee par exemple danga am problème stress ak genre mel noonu am na ay points yoo xam ne ci yaram bi dañ ko war a maase points yooyu soo ko maasee donc dafay nit ki dafay am jàmm dafay détendre carrément ndax day détendre li nga xam ne moom mooy Euh, day détendre li nga xam ne moom mooy euh, système nerveux bi kon dafa di loo xam ne lu ama am solo la li nga xam ne moom mooy massage donc ci tënk daal massage mooy li nga xamante ne sentiment de bien-être la waa na massage loolu lay indi ci li nga xam ne moom mooy wàllu wérgu yaram doomu aadama waa soxna Bintu euh, massage moom sa dépend ci nit ki rek mais comme par exemple jigéen joo xam ne dafa accouché ba pare kook dina soxla massage am ñoo xam ne yenn saa yi dañu am yenn problème feebar yi mooy wàllu neer ak yooyu kooku dina soxla massage wala tam boo sentiree sa yaram nag yow da nga na yow war ngaa war a mën a maase wu même bu dee deux fois ci mois bi sax war ngaa mën a maase wu parce que bu fekkee danga di koo xam ne liggéey bi ngay liggéey dafa nekk liggéey boo xam ne bu diis la wala toog bu yàgg bi wala dox lu sori ak yooyu ça dépend rek ci fonction euh, bi nga xam ne moom ngay liggéeyee donc dangay soxla li nga xam ne moom mooy massage sa dépend rek ci nit ki euh, ci wàllu liggéeyam ci ni muy yëgee coono ci yaramam ak yooyu kon kooku mooy ki nga xam ne dafay soxla massage. léegi euh, deuxième question bi mooy da ngay laaj ndax nit mën na maase boppam am na yenn partie yoo xam ne nit ki mënu ko maase boppam mais par exemple bu fekkee say loxo ak say tànk ak yooyu nit ki mën nga ko maaseel sa bopp. waaye bu fekkee yeneen côté yi la ci yaram nit ki mënoo maase sa bopp faw ñu maase la massage boobu tamit ni ñuy maasee góor noonu la ñuy maasee jigéen bu fekkee bu juddul tamit massage bi euh, dañ koy soxla pour bu ko defee euh, ba ñi nga xam ne sax ñoom ñooy tubaab yi sax dañuy maase mais nekkut comme yenn saa yi ni ñu koy defee fii nii ñun africains yi dañuy jàpp yaram xale bi bës ko bësa bësa bës ah nag ko juutal ko xëcc gësam yooyu dafa nekk yoo xam ne système yooyu déedéet du noonu la ñuy maasee booy maasee dina nekk loo xam ne massage la mais mel ni kuy forote rek doo bët ah doo def yenn pression yu métti surtout bu fekkee nag bébé la boo xam ne mu ngi soog a juddu boobu dañ koy maase massage bu yem rek donc ni ñuy maasee góor noonu la ñuy maasee ki nga xam ne moom mooy jigéen massage nag nit ki mënu ko defal boppam faw mu aajoo koo xam ne daf koy maase foog naa ne loolu moo nekkoon sa laaj bi donc soxna Bintu yi mooy matériels yi nga xam ne yenn saa yi mënta ñàkk ci kiy maase bu fekkee yow massage bi sa kër nga koy defee wala tam da ngay fekk ji nit ci këram sax am na ay mat ay appareils yoo xam ne comme genre yi mën na jël courant que mën na jël batterie moom ngay jël hmm, daal di koy commencer massage bi ndax da ngay yaramu nit ki ba nga xam ne ay neeram yeewu na ba pare nga soog a ñëw jublu ci li nga xam ne moom mooy massage bi donc doo ñëw rek ni maase nit ki dafa mel ni tey jii nit nga fekk mu taxaw rek nga xëpp ko ndox mu sedd tiit boobu muy tiit mën na ko indil gàllankoor fekk yow faj nga ci jublu woon donc euh, da ngay jël lii nga vibré ko machine genre yu mel nii ba ay neeram euh, yeewu après nga soog a nag ñëw maase sooy maase tamit comme ni nga ko waxee rek mooy ci matériel yi laa ñëw ba tey di nga soxla huile de massage di nga soxla tamit fi nga xam ne foofu ngay tàngalee li nga xam ne moom mooy huile bi ndax ku ne massage ne lu tàng moom mooy li nga xam ne moom mooy li ci gën léegi soo taalee sondeel bi nii ci suuf huile bi ci kaw nga koy def bu nga xam ne day nugg nga mën a maase bu fekkee nit ki amu ko tamit mën nga jël euh, sa huile de massage def ko sa benn bool teg ko sa kaw ànd ànd boo xam ne suul nga ko ba mu tàng nga teg ko nga xam ne day nugg nga jël ko di di maase mais kenn du maase ak loo xam ne dafa sedd kon matériel yi mooy li nga xam ne moom la ñuy soxla pour massage yi donc ba tey tamit même si wàllu massage bi kon ni koy waxee rek li ci matériel yi yenn saa yi tamit di nga soxla bu fekkee yëpp amoo ko di nga soxla lu mel ni euh, xobu pëftan loolu tamit mën nañ ko maasee danga koy jël di ko dugal ci ndox mu tàng di maase nit ki wala soo ko amul tam nga am serviette boo xam ne da koy dugal ci ndox mu nugg tamit nga koy euh, maasee tamit li nga xam ne moom mooy euh, yaramu nit ki kon yooyu ay matériel loo xam ne yu mënta ñàkk la ci li nga xam ne moom mooy wàllu massage ba tey tamit mën nañ maasee tamit ak li nga xamante ne moom mooy euh, ay plante waaw ay plante tam mën nañ ko maasee euh, xam naa dinaa dugal photo bi pour yoo xamante ne ay plante lañ ci wàllu massage léegi si matériel yi ba tey bii li nga xam ne moom mooy compresse compresse lañ koy wax par exemple da ngay jël sa benn morceau malikaan fekk fóot nga ko boo ko fóotee xam nga day fay nooy léegi nga jël li nga xamante ne moom mooy ay plante par exemple li nga xam ne ay euh, xollitu xottu butéel wala euh, niima bii nii hmm, yooyu yëpp ak yeneen herbe yi mën nga ko jël wala li nga xam ne moom mooy naanaa sauge bi da koy jël takk ko ci compresse bi ba mu dëgër après bu ko defee na nga jël ànd bi teg ko jël huile def ko ci benn bool léegi bu ko defee compresse boobu moom ngay jël di ko dugal ci li nga xam ne moom mooy huile bu nugg bi di ko maasee li nga xam ne moom mooy euh, yaramu nit bi yaramu nit ki donc du moins kon lii tamit ci ci matériel yoo xam ne ci wàllu massage la beneen bi tamit am na yoo xam ne massage ak kii la li nga xam ne moom mooy ay xeer mooy par exemple comme xeeru tiimkaay yi nii yooyu tamit mën nañ ko jël di ko maasee tamit voilà yooyu da ngay nuggal euh, euh, kii bi tamit nu mu tuddati sa ah nga jël xeer yi di ko ci dugal di maase wala nga jël xeer yi euh, teg ko ci kaw loo xam ne dina dem ba tàng ba yaram nit ki ñeme ko nga jël ko tamit di ko maase li nga xam ne mooy yaram bi donc tamit kuy maase comme ni ñu ko waxee rek dina soxla li nga xam ne moom mooy matériel salaamaaleykum wa rahmatullah donc lii mooy yi nga xam ne mooy xeer yi nga xam ne moom la ñuy jël pour euh, di ko masser ndax boo demee li nga xam ne moom mooy dëkk chinois yi ñoom dañuy def genre massage yi nii kon itam dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, matériel yi nga xam ne nit ki dina ko soxla pour wàllu massage waa soxna Bintu aywa jazakillah xayran wa barakallah fiik waaw euh, massage moom vraiment même bu fekkee nit ki da koy def mu jéem a tam xam yenn points yi ndax am na euh, point yoo xam ne si nit ki soo ko bësee mën nga ko indil yenn jafe-jafe comme xam nga ñenn ñi suñuy maase au lieu ñu maase ndax massage boo nee massage dafa mel na kuy paase mais ñenn ñi dañuy bës te bës googu mooy li nga xam ne warut ne booy bës sax légèrement lay nekk foofu tamit dama bëggoon a leeral point bi foofu noonu. aywa beneen bi nag mooy question bi nga laajtee ndax bu fekkee nit ki dañ ko may boroom kër mu ànd ak borom këram ndax dafa war a dàmpu euh, xam nga africain moom toujours rek moom moom mooy euh, indi yenn dolleeku yoo xamante ne moom euh, duñ ko wutal cëslaay daal du am benn cosaan waaw ndax koo xam ne dafa ànd ak borom këram loolu moom aajowul li nga xam ne moom mooy massage waa aajowul li nga xam ne mooy maasa nekkul loo xam ne une obligation la daal du du loo xam ne farata la nit ki dafa war a maase wu déedéet peut-être xëy na ñoom ñoo ko def euh, aada rek mu ngi noonu. waa soxna Bintu waa macha allah ëttu jigéen la te li nga xam ne moom mooy suñu diine islam sax moom bàyyiwul dara ndax moom dafa jàngale lépp lépp lépp ba wàllu sax li nga xam ne moom mooy wàllu sexualité mooy wàllu néegu sëy da koo jàngale ndax am na ay téere yoo xam ne yow loolu rek la ñuy jàngale kon li nga xam ne nag mooy massage nekk na loo xam ne euh, nit ak boroom këram mën nañ koy defalante ku jigéen ki mën na koy defal boroom këram borom këram tamit war na koy defal ki nga xam ne mooy soxnaam kon massage boobu li ñuy wax rek massage dafa bëri ay façons am na massage yoo xam ne ay massage sensuel lañ koy wax wala massage érotique wala massage pour loo xam ne dafay relaxer rek kon tey yow massage bi nga laajte maanaam mooy massage boo xam ne euh, ñaar waay dencante yi war nañoo maasante ba pare soog a war a mën a ànd ci néegu sëy ak yow loolu mën na nekk kon loolu lañu naan massage érotique kon genre massage boobu noonu bu ko jigéen kiy def wala bu koy defal boroom këram wala borom këram di ko defal li jiitu ci massage mooy ki nga xam ne moom mooy maase dafa war a dagg lépp loo xam ne ay we la lépp luy we da koo war a dagg ndax suñu maase nit mën na koo gaañ. ba pare ci eh, fi muy maasee tam war na nekk foo xamante ne nekkut foo xam ne du accessible maanaam sooy maasee nga maasee si suuf wala bu dee table la waaw waaye bu dee kon mooy li gën kon maanaam da ngay eh, lal sa sa mer gàddu wala lal sa bassan jël sa benn mer gàddu teg ci jël sa drap bu set lal ci lal ko ci parce que yooyu tamit daf ci am solo ci wàllu massage bu ko defee nag dina fekk fi ngay maasee tam na nekk foo xam ne fu calme lay doon na nekk foo xam ne tamit fu bakkane la ndax gis nga loolu lépp dafa bokk ci li nga xamante ni dafay dafay euh, bind li nga xam ne mooy stress moo tax gis nga dañu foog ne tubaab yi rek ñoo war a décorer seen néeg fi yooyu déedéet même yow mii sax ki nga xam ne yow yaay africain bi wala africaine bi war ngay décorer sa néeg ci wàllu ay fleur wala lépp loo xam ne lu koy taaral la ndax loolu noonu sax ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale psychologie sociologie du moins dañuy wax ni que loolu taar taar boobu nit ki di xool dafa Euh, dafa am lu muy apporté ci li nga xam ne mooy bien-être am kon loolu mu nekk loo xam ne euh, lu ñu war a bàyyi xel la. waa soxna Bintu <laughs> aywa macha allah amul muskila question yi bu amee solo rek euh, donte tënku nañ may dinañu ànd ak loolu di ko tontu aywa waaw li nga xam ne moom mooy massage bi maanaam dàmp bi comme niñ ko waxee góor da koy soxla jigéen da koy soxla donc jigéen war naa war a mën a jàng massage ba wara mëna maté wow borom kërëm waaw lool mom dafa jigen ci li nga xamantene jigen mu ne war na ka mëna jang même bu fekkee da koy jang tuuti tuuti ba mokal ko sax baxna ndax yenn saay goor ñi dañuy soxla li nga xamne mom moy massage donc ku ki ku jigen ki war na ka mëna jang dika defal borom kërëm donc audio bi la doon bañ mu gudd kon yoy itam lu ci am solo la si kuy nga xamne da ngay ñëw pour def massage bobu nonu donc te si si nga war a maasee li ko jiitu dagg say we fi ngay maase na nekk foo xamante ne euh, ambiance bi macha allah hmm, euh, néeg bi mën nga soit da def sa déodorant wala da ngay def sa cuuraay boo xam ne du saxaar nag ba xër néeg bi tu vois yow na fekk tamit da nga war a sangu ba set ki ngay maase tamit dafa war a sangu ba set nga dagg say we parce que massage la boo xamante ne ñaari way dencante ñoom ñoo ko soxla donc yow foofu sooy maase du aajo ngay parce que loolu lañu naan massage body body parce que am na ñoo xamante ni ragaluñu yàlla ay góoru jàmbur dañuy dem ci ay yenn centre de massage ñu leen di massé massage yu mel noonu kon loolu nit ak boroom këram rek ñoom ñoo ko war a defalante mi ngi noonu. donc kon yooyu mooy yi nga xam ne mooy éléments yu essentiels yi léegi comme dagg nga say wex tamit mouvement yi tamit sooy massé euh, matériels yi na tegee tamit hmm? euh, mooy huile yeeg yi ngay soxla. bu fekkee amoo yenn matériel mën nga ut serviette comme niñ ko waxee nga ut ndox mu nugg ut foo xam ne di ko fa tàngalee sa huile léegi chaque fois soo maasee nit ki ba pare da jël serviette bi def ci ndox mu nugg bi daal di koy fompee nugg nugg boobu dafa am lu muy def ci biir yaramam parce que comme ni ma waxee massage boobu noonu dafay tax euh, circulation sanguine bi dafay daw bu baax te xam nga bu ñu ne sëy rek ne li nga xam ne mooy euh, ay sirit yoo xam ne dafa tàllalu mooy deret boo xam ne dafay daw parce que mbir mi lépp ci cerveau la kon bu fekkee yow tey ji ku jigéen ki defal nga ko sa borom kër wala sa borom kër defal na ko soxnaam hmm, day nekk loo xam ne kon loolu nga xam ne ñu ngi koy waaja a euh, jublu day nekk loo xam ne lu yomb lay doon parce que dafay faciliter li nga xam ne moom mooy deret boobu nga xam ne moom mooy daw ci yaramu doomu aadama bi donc sooy commencé massage bi comme ni ma ko waxee yow miy massé da li njëkk mooy da ngay euh, jël huile bu bi yow sa bopp nga daal di koy frotter say loxo parce que sooy massé Euh, parce que activité physique la dangay ngay sonn sax yow mi maase maase say loxo bu baax ba nga xamante ne sooy ñëw pour maase di nga mën a maase léegi li ngay tàmbalee mooy dangay ngay commencer ci kaw ci kaw ngay commencer daal di wàcc bépp point boo xam ne muy maasaay xam naa dinañ ci dugal photo yi foofu war nga koo euh, maase wàcc ba dem ba ci suuf ba ci tànk yi euh, ba ci li nga xam ne mooy suufu tànk bi parce que coono yépp foofu lay foofu lay dajaloo ndax dañ naan normalement sa nit ki balaa muy tëdd su ko mënee def euh, chaque jour wala mu koy def deux ou trois fois par semaine di maase suufu tànkam ndax lépp loo xam ne muy coono rek ci suufu tànk yi lay nekk maase ba ci kaw bopp bi baaraam yi boo ci egsee nga xëcc yooyu yëpp bokk na ci système yi nga xamante ne moom la ñuy euh, euh, maase parce que instant yooyu day nekk foo xam ne day am marché day am solo lool. waa soxna Bintu macha allah. jazakillah xayran wa barakallahu fiik waaw massage de euh, boo dee xool mag ñu njëkk ña ñoom dañ daan maase te fekk jànguñu ko maanaam di nga jege kenn koo xamante ni moom dafay def métier massage boobu noonu nga daal ci am li nga xam ne mooy formation bu dee bu njëkk ba mais léegi nii ci suñ jamono jii léegi am na ñoo xamante ne ay formation lay doon yoo xam ne pour wàllu massage am ñoo xam ne ay branche la yoo xam ne moom la ñuy jàng mooy ñiy def wàllu esthétique ak yu mel noonu wala ñi nga xamante ni sax dañoo nekk ci hôpitaux yi euh, di def wàllu yi ñooñu itam dafa di loo xam ne ñoom lu ñuy jàng la ba am ci li nga xam ne moom mooy sa métier moo tax am na yenn euh, euh, gaañu gaañu yoo xamante ni n'importe kii moo koy maase par exemple nit ki rëq wala mu am yenn façon feebar yi donc ñooñu dafa am ñoo xam ne professionnellement ñoom dafa di loo xam ne dañ ko jàng mooy wàllu kinésithérapie mais tamit comme ni ma ko waxee boo demee ci mag ñu njëkk ña tamit ñi nga xam ne mooy wàllu praticien wala ñoo xamante ne sax ñoom yàlla moo leen baaxee tam li nga xam ne moom mooy wàllu massage ndax boo demee ci yenn dëkk yi di nga gis nit ki par exemple fekkee tànkam dafa rëkk wala mu daanu yenn daanu yi hmm, wala mu accouché wala bébé bi da ngay gis ni mag ñi dañ ko daan maase te fekk ñoom duñ si daan am li nga xam ne moom mooy formation leneen li tamit mooy ndax kiy maase dafa war a am bërëb boo xam ne dafay maase ça dépend bu fekkee daf ko def li nga xam ne massage boobu mu nekk liggéeyam kon dina am bërëb boo xam ne foofu la war a maase donc bu dee jigéen la jigéen na maase jigéen góor maase li nga xam ne moom mooy góor xanaa ba mu nekk loo xam ne comme par exemple ci wàllu feebar ni ñu koy waxee boo demee hôpital am na ñoo xam ne kinésithérapie yi ñoom soo ñëwee di faju ngànt la ñoom yenn saa yi dañ ko fekk góor mu lay maase mais bu fekkee nag nit ki daf ko def liggéeyam hmm, donc jigéen mooy maase jigéen góor maase li nga xam ne moom mooy góor donc kon bu fekkee tamit da ko def profession maanaam am na ñoo xam ne dañu ubbi ay salon yoo xam ne salon de massage la donc faw nga am espace boo xamante fa ngay maase soit bu fekkee sa kër la tamit wala yow da ngay dem fekk ji nit ki il faut nga am tamit li nga xam ne mooy matériel bi nga xam ne moom nga war a maase ndax massage bi dafa am ay matériels yoo xam ne moom lay àndal euh, mën na ànd ak matériel yooyu que mën na ko bañ a am tamit am na jumtukaay yoo xamante ne euh, faw mu am ci li nga xam ne moom mooy wàllu massage bërëb bi tamit fi ngay maasee tamit war na nekk foo xam ne fu calme lay doon hmm? dina nekk foo xam ne fu set lay doon tamit matériel yi ngay yor tam dina doon matériel yoo xam ne matériel yu lay doon beneen bi tam moom di nga aajoo li nga xam ne moom mooy ay huile de massage wala ay beurre de massage donc yooyu tamit dafa nekk yoo xamante ne yuy ittewoo la ci li nga xam ne moom mooy wàllu massage euh, léegi soxna Bintu comme ni ma ko doon waxee rek ci wàllu massage bi comme jigéen ni ngay wa maasee li nga xam ne mooy sa borom kër sa borom kër tamit war naa la war a mën a maase comme niñ ko waxee rek huile de massage yi yooyu tamit dafa bokk ci matériel yoo xam ne ñuy soxla la pour massage bi mën a jaar yoon donc soo amul accessibilité pour jënd li nga xam ne mooy huile yi kon man nga jëfandiko li nga xamne mom moy karité ndax karité mom ñepp ko am mais karité fekke da fay xéñ sax man nga jël xorom polle nga dal di koy dëbb ba mu mok soko dëbbé ba mu mok nga dal di tek karité bi ba mu nga def ko ci dal di yëngal ba mu mat ay 5 minutes nga téggi bayiko non après nga dal di koy ségg lolu mën na ko jël diko défé massage wala tamit mën nga jël li nga xamné mom moy euh jingère bi ni poudre bi moom tamit comme ni ma ko waxee ci kii bi rek euh, ci xorom polle bi mën nga ko maasee tamit loolu tamit euh, ku ko amul tamit mën nga jënd ay huile ndax huile yi léegi gars yi ñu koy jaay yoo xam ne huile de massage la à base de lay nekk ak yooyu mu nekk yoo xam ne yu ama am solo la huile xabat sawda bi tamit huile gënu ko tamit ci huile massage wala soo jëlee sa karité tamit xam yenn saay xet bi day sonle da ngay euh, râper li nga xam ne mooy zeste orange wala wala citron mooy xollit bi da ngay jël grattoir gratter ko soo gratter orange bi wala bu dee limon bi nga am mën nga ko jël daal di koy boole karité bi daal di koy togg su ko defee après loolu tamit mën nga ko jël di ko defee huile de massage am na ay beurre de massage yoo xam ne tamit tamit dañ koy defar hmm? xam naa peut-être beneen yoon incha allah yooyu tamit mën nga ko jël pour di masser. comme niñ ko waxee tamit bu fekkee pëftan bi tamit dafa baax torop wala niim bii nii moom da ut say xobu pëftan raxas ko ba mu set daal di nuggal sa ndox ba mu nugg nga xam ne yaramu nit ki dina ko ñeme léegi yow soo maasee ak say quarité wala sa huile ba pare nga daal di jël xob pëftan yi dugal ko ci ndox mu tàng bi moom ngay jël di ko bësee di ko maasee li nga xam ne moom mooy euh, yaramu nit ki donc kon massage comme niñ ko laajtee rek mooy li nga xam ne borom kër mën na ko defal soxnaam soxnaam tamit mën na ko defal ki nga xam ne moom mooy euh, borom këram am na ay huile menthe yoo xam ne tamit yu baax la tamit pour ci wàllu massage kon yooyu noonu yëpp dafa di yoo xam ne yu ama am solo la waa soxna Bintu amin wa iyaaki jazakumullah xayran wa barakallah ki waa massage de euh, li may dollee jigéen ñi rek mooy jigéen bu ne rek war ngaa sàlloo li nga xamante ne mooy sa matériel de massage ndax góor ñi dinañuy sonn ndeysaan kon war nañuy soxla de temps en temps ku leen maase te nit ki booy maase amul fet na foo xam ne ci yaram rek waruñu koo mën a maase xakay fépp fépp fépp mën nañ koo maase ba ci kilifa gi sax dañ koy maase aha yow koy utal sa karité bu baax boo xam ne amul xet bu bu bu naqari comme ni ma ko waxee rek jël sa xollitu orange bi wala xolitu limon bi hmm. wala huile xorom polle bi wala huile jinjeer bi mais toujours bu fekkee da am huile jinjeer wala huile xorom polle doo ñëw directement def ko ci yaramu nit ki déedéet da koy booleeg beneen huile danga koy boole huile d'olive wala huile d'amande douce wala nga boole ak sa karité boo xam ne amul benn xet yooyu mën nga ko jël di maase fépp foo bëgg maase ci yaram nit ki rek war nga kaa mën a maase ba ci kilifa gi comme ni ma ko waxee rek mais avec précaution toujours rek ndànk massage nekkul bës ak doole déedéet dafa mel ni tey boo jëloon sa feer di paase ndànk-ndànk rek noonu ngay def daal di maase kon fépp mën nga kaa maase ci li nga xam ne mooy yaram li may euh, baaxewaat sama mbokk jigéen ñi rek mooy euh, doole yemul naam mais tey jii képp koo xam ne bëgg ngaa maase sa borom kër war nga kaa mën a maase ak moyens yi nga xam ne moom nga am ndax bu dee serviette am nga ko ndax boo demee fëgg jaay di nga fa mën a am serviette bu dee karité am nga ko xoolite orange orange fu mu ne nii ngi bëri lool ci dëkk bi mën nga ko daal di gratter soo ko gratter teg ko ba mu wow nga dëbb ko mu nekk poudre bu dee orange bi nga dëbb ko mu nekk poudre di ko jël di ko parfumer li nga xam ne moom say beurre de karité hmm? après nga daal di koy segg ba mu baax def ko sa benn bocal bu rafet wala nga am sa huile def ko sa benn bouteille bu rafet dara kenn manqué ko boo amul mer gàddu sax sa néeg sa tapi nga am lalal sa dara ba mu baax nga daal di maase li nga xam ne moom sa borom kër ndax massage boobu nekk na ci loo xam toujours yow dangay bëgg sa borom kër jox la lu bëri parce que góor mooy gën a sonn parce que góor mooy ki nga xamante ne moom mooy génn moom mooy dem uti dépense ak ila axiri bu fekkee sax da ngay joteeg sa soxna kaw lal bi sax góor mooy ki nga xamante ne toujours rek énergie am li muy dépensé ci énergie moo gën a bëri li muy lakk ci ay calories euh, ci ci ci wàllu sëy boobu noonu dafa bëri lool kon tamit di ko maase dafa nekk loo xamante ne lu ama am solo la donc da koy soxla kon massage bi même bu fekkee du chaque jour du du massage du chaque jour lañ koy def mën nga ko def euh, ñaari yoon ci weer bi wala ñetti yoon ça dépend sa disponibilité mi ngi noonu te toujours tam bu fekkee danga nga nit ki tamit euh, bu fekkee euh, demul sangu bu maase woo ba pare donc da ngay nuggal ndox jël serviette bi def ko ci ndox bi nugg bi daal di pompe nin nin bi nga xam ne moom moo nekk ci yaram bi li may wax tamit mooy de préférence massage ku koy def day fekk nga sangu ba pare nga sangu ba pare ah soo mënee xëppoo ndox mu nugg sax mooy li gën bu ko defee muscle yi dañuy bàyyi boo maasee woo ba pare tamit bu fekkee mën nga tamit dem sangu mooy li mais tout le temps bu fekkee nit ki danga nga maasee woo ba pare bul maasee wu rek di jóg dem sangu dafa mel ne ku doon def sport soo maasee woo pare wala bu ñu la maasee ba pare nga tëdd benn 30 minutes bu fekkee da nga bëgg dem sangu nga dem sangu kon euh, lii mooy li nga xam ne tey ji moom lañu indiwoon ci kër gi bi ci jóg ñu ngi koy santee borom bi subhaanahu wa lu ci dëng ñu xam ne ci matari doomu aadama la ak di jàng te fekk euh, jàng bi àggagul aquli qawli haza astaghfirullah li wa lakum asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa soxna Bintu waaw comme ni nga ko waxee rek massage même bu fekkee ku jigéen ki tamit ku góor ki war na kaa mën a defal ak kay parce que boo xoolee yenn saa li nga xam ne moom mooy côté sud bi ay Casamance ak yooyu su jigéen accouché ba pare lu tax ñoom seeni jigéen Euh, ñu baal ma ci kàddu gi ñoom yenn saa yi seen kanam duy gaaw bàyyi ndax bu ñu amee doom dañuy dàmp ba dàmp li nga xam ne moom mooy seen kanam su ma nee kanam maanaam jubluwuma ci visage mooy kanamu jigéen maanaam fi muy sëyi dañ koy dàmp ak tey dinañuy jël li nga xam ne moom mooy euh, kii bi euh, neb neb bii nii mère yi moom la jël bu fekkee jigéen dafa accouché ba pare sax dañ koy jël di ko dàmpee di ko sotti ci kaw noonu di ko dàmp nga mel na kuy dajale ab mbir kon bu dee jigéen noonu lañ koy noonu lañ koy maasee dangay mel na kuy dajale hmm? donc même ku jigéen ki sax loolu war na di ko mën sax di ko defal boppam di def ay bain yoo xamante ne par exemple dafay jël li nga xam ne moom mooy neb neb bii nii bu dee doom bi la am mu jël ci benn ngëbu loxo rek daal di koy baxal bu ko baxalee nga xam ne ba yaramam ñeme ko après moom lay jël jël benn benn genre serviette di ko ci def di dàmp donc bu dee ko jigéen ki tam noonu lañ koy dàmpee mën nañ ko maase tamit ak li nga xam ne mooy beurre de karité fekk lépp loo xam ne luy karaw rek euh, dindi nañ ko ba mu set mi ngi noonu beneen bi nga laaj mooy euh, góor dafay dafay dafay dafay dégager énergie bu bari moo tax kon foofu li ñuy wax mooy ku jigéen ki war na xool bu baax a baax li nga xam ne borom këram loolu lay lekk li muy lekk tamit na doon loo xam ne mu bañ niin de trop mooy gras bi baña saf xorom de trop yoy tam bok na ci li nga xamne day indi galankor donc euh, mu téla rer reer lo xamantene du bis trop mu baña tamit nin de trop su ci mënee baña def bouillon moy li gën ndax bouillon mom vraiment damay profiter la occasion bi waxale ko jigen ni ñu bàyyi ci xel bu baax nek na lo xamne lu luy ay rein la luy tëlewoo tele la góor day dem ba góor ki da fay tele donc toujours jigéen yenn saa yi dama ne war nay gànnaayoo loo xamante ne genre dessert lay doon par exemple bu fekkee borom këram ànd nañ ba pare bu fekkee woon na ko ndax tey ji boo maasee nit ki ba pare dafay xiif parce que dafay sonn léegi bu reposé wu ba pare na nekk loo xamante ne rek lu oyof lay doon maanaam mën na nekk ay fruits hmm, wala mën na nekk benn gato wala mën na nekk benn genre dessert boo xamante ne boo oyof la boo xam ne rek moom mën na koo lekk ba nga xam ne euh, du ko sonal donc man daal loolu laay indi ci li nga xam ne moom mooy conseil euh, na lekk lekk boo xam ne lekk bu baax la bu bari ay vitamine parce que góor comme li muy lakk ci ay calories dafa bëri donc li muy lekk tam na bari lool sax li nga xam ne moom mooy ay vitamine aywa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa aleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu waa xabibati euh, ñu ngi lay fay nuyu di la ziyaar di la ñaanal tawfiq fi dunya wal axira euh, gën nañoo déggante macha allah amin amin wa iyaati yàlla yàlla fay ñu yiw yëpp macha allah waaw loolu la de comme ni niñ ko waxee moom euh, kenn bu mu ne aw ma ndax euh, mën nañ def avec les moyens de bord am na ñoo xam ne fa ñu nekk bëgg nañ ko def mais mënuñoo jot ci yenn bagage yi comme ni nga ko waxee karité cherul karité moom dagg cent franc rek soo ko amee rek war ngaa mën a maase am nga sa serviette sa kër war ngaa mën a maase am nga sa benn darab war ngaa mën a maase kon tey ji euh, comme nañ ko waxee rek jigéen moom sa diggante sa borom kër kersa bu ci amee rek nanga war a sëyee doo ko sëyee na nga war a sëyee rek doo ko sëyee ndax am na ñoo xam ne rus nañoo summeeku sax seen kanam borom kër te am na yu bari yoo xamante ne nag soo ko jéemul rek doo ko mën soo ko jéemul doo ko mën noonu la kon nañu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yombal ñu ndax jigéen bu jongee dëgg moom dafay nooy nangu hmm, te du am yenn kersa ndax jigéenu jullit mooy ki nga xam ne bu nekké ci biti day mel xarum yar waye bu nekké ci kanam borom kërëm dafa wara melni gaynde koku moy ki nga xamné moy jigéenu julit yalna yàlla barkel defal ñu jàmm fi dunya wal akhirah axira wa jazakillahu khairan wa barakallahu barakallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa soxna bintu ya ngi don laccé mbiri ku ko soxla wa bu fekkee fi Dakar la yi ni man dama koy faral di defar wa mais euh, par commande rek la koy def yenn saay nit day soxla ma defaral ko même bu fekke da nga nek ci région yi euh yenn saay bu commande yi beure meun nañ ko livrer fo dañ koy dugal rek ci horaire bi donc li moy bougie de massage ku nek fofu tamit meun nga ko defar li nga xamne moy bougie de massage mais li ngay soxla moy da ngay soxla sondel par exemple ben sondel bu ndaw da dal di koy rapé hmm nga soxla ki euh karité di nga soxla huile d'olive ak euh, su la neexee huile de menthe bi wala huile jinjeer bi mu ngi noonu soo ko amul comme ni ma waxee rek mën nga defaral sa bopp huile xorom polle nga jël karité bi ak xorom polle bi boole ko après nga daal di koy segg léegi comme butéel yi ma wane nii ci kaw nii léegi da ngay am sa benn euh, bant nga am sa benn mèche mèche sondel wala nga jël sa benn mouchoir daal di koy raw léegi nga jël li nga am huile de coco tamit nga jël karité bi ak sondeel bi moom ngay seeyal boo ko seeyalee fekk jëlul nga euh, sa sa sa sa bi dugal ko ci biir ver bi nii daal ci sotti sondeel ba mu téye nga takkee ko bant bi bant bee koy téye dégg nga léegi soo seeyalee karité beeg sondeel bi ba teggi ko nga jël huile yi nag jël sa huile yooyu yëpp daal di ko ciy def nga daal di koy sotti ci verre bii nii soo ko sottee nga daal di koy teg ba mu sedd après sooy maase rek moom ngay taal muy seey nga koy euh, maase ki nga xam ne mooy euh,